mbokk yi jërë ngeen jëf euh, Bandiawaly Mbaye la anti Aïcha anti Ada man la neex waaw su ma neexee sax daf ne anti Aïcha anti Ada <laughs> waaw ndax ñoom ñaar benn lañ mbokk yi di leen fàttali ne euh, we just have a very interesting and um, uh, uh, how do I put it interesting story interesting uh, social issue how would you like me to put it? Like you this? know, every day we, we deal with interesting social issues. Okay. Let's just go with the issue. Okay. The president of Ghana Nana Akufu Ado has announced, of course, Akufu Ado has announced that Ghana will establish 90 hospitals in the country. He said the COVID-19 pandemic has shown the country Oh, oh, no, no, no, no, uh, has shown that the country needs to invest more in the health sector. Mm -hmm. We are facing the same situation in, in my hometown. Zagambia. <laughs> okay? yeah, Zagambia, where the health sector is very weak, not weak, very, very weak. Okay? The government should plan on doing the same thing uh, the same thing and put some money into putting up modern hospitals into the regions. That's sure. Sure, the government should work on that also. So, uh, should I assume that the 500 million they spoke about is going through the to the health sector? Hope it's not more than 500 million. It's 500 million given to the Ministry of Health. Mom lañ So man mm-hmm. suma But the money is more than that. No, 500 million pull health sector bi Mr President Ghana please I want come there oh. for 90 million. non non non like 90 hospitals waaw moom la moom la bëgg moom la bëgg a tax moom la bëgg a def. way way that is very important am na xalaat ba rafet soo ko seetee. Mhm. parce que situation buñ toll nii. health sector yi lañ gën a soxla. Mhm. pour ñu mën a faj nit ñi. that's it ñu mën a wér si jàmm. that's it that's it that's it. waaye man naana doo ko doon prononcer tur bi moo ma moo moo fa. Nana Akufo-Addo. ah kay gën yàlla ko ah. naan. yow si su ma mbokk yi gaane ya ni euh, ñoom moom man fu mu nekk nii damaa ne xaaral ma daw dem toog gaana because ñoom ah ah li ñoo waaja def moom <laughs> <laughs> waaw ñu gis ne comme 90 hospitals si moo wax noonu mhm. ñun tey Gambie suñ ko amoon tey fuñ jëm ah, loxoom si kaw dafa baax waaye nag buñ ko am mu nekk néegi neen waaw waaw da gis ne sa yenn saa yi da dem si si yenn si yenn région si ñoo gis ni si dex euh, euh, dañ fa soxla ay docteur yoo xamante ne ñu màcc lañ ñu xarañ si liggéey bi waaye dañoo jël ay ay student yoo xamante ne yaa ngi si yaa si yaa ngi si naka la waar sa school of nursing bi ñu jël la dem poste la foofu noonu amaguloo kayit graduate aguloo amaguloo expérience bi te soo seetee dañ lay teg tuuti sax duñ la admin dañ lay rifa ne la dama pare man man bu ma dooree di génnaat expérience yu ma am si biti man there was a time dama génnoon dem si uh, région si nii comme si dexe bi. Hmm. demoon naa demoon naa si benn lopitaan bu nga xamante ne xam nga li ma fekk docteur yi di def. Hmm. dinaa ne nurse yi sa ay jigéen lañ. Hmm. ku nekkaa ngi toog yaa ngi si sa téléphone maa ngi nekk patient maa ngi ñëw. pour ngeen atteindre ma sax it was a problem because dangaa gis kii kii naan kii mu ngee nelaw kii mu ngee def nii kii mu ngee def. nii ñu dañ busy te busy even though nañ ñu dimbale. waaw man even though euh, déggal la mister naa na soo ko defee tamit baax na waaye man bu mu nekk structure neen man this is my point hmm. noosi si ñoom ñoom seen jikko euh, am na ci am nañu ci bari ñoo xam ne dañ am jikko mm-hmm. understand nga loolu moom ñëpp nangu nañ ko ba si maternité bi sax soo fa demee léegi-léegi nga dégg fa yoo xam ne waruloo ko faa dégg mm-hmm. ah, understand nga waxuma la sax dama soona da di gune ah? gune la moo tax xam nga ah. naka yow maam yow xam nga waaye moom gune la moo tax xam rek <laughs> xam mm-hmm. léegi ma li may wax mooy léegi nañ góorgóorlu su fekkee ne Gambien soxla nañ lii lii buñ ko mënee am ci Gambien bi dina baax waaye bu mu nekk néegi neen nañ méeg sonne lépp loo xam ne wàllu xarala la suñ ne xarala mooy équipement si nañ équipe lopitaan yi équipe leen bu bu mut set bàjjul ba koy na mun nañ ko five hundred million mun naa samp loolu mun naa samp loolu su fekkee ne mënu koo sampa five hundred million bi mun nañ koo jël pour upgrade suñu hospital si waaw euh, parce que da ngaa gis ne l'hôpital Banjul bi la ñëpp di bees muy Edward Edward Francis Small Teaching Hospital bi ah xëy maa ko jàpp bu ko bilee jàpp bu leen ma bilee euh, ñu gis ne ñëpp si benn l'hôpital bi la ñëpp ñëpp capitalize, ñëpp eh, <laughs> si benn lopitaan bi lañ dee capitalise dangaa jógee fu sori ay ñoom farafeñe fu nekk am na lopitaan waaye ku feebar rek fii lañ laa buub indi la ah waaye fii dama gis ne fii amuñ équipement yu nga xamante ne doy na pour nit ñi garab yi doyul mhm. ah, parastamol rek noonu lañ ko jàngal benn ñaar rek parastamol benn ñaar parastamol te farafeñe te farafeñe seen lopitaan bi mhm. rëy na rëy boo xam ne gis nga suñ fa defoon équipement nga xam ne lañ soxla mhm. ñu dem basee dem bansang dem makati. gis nga digga diggante yooyu noonu ah, dem ay gambi saara boo yooyu noonu samp fa ay lopitaan yu baax def fa ay équipement yu baax yoo xam ne du jar sax ñooñu ambulance di leen fi indi. di leen fi indi. ah dafa baax. Iya, yenn saa yi patient jógee fu sori balaa moo ñëw ambulance bi yàlla tere borom gaañu si. ay yow yaa ko tey dee na dee na dee na mbokk yi daal ah, Nana Akufo Addo lim def baax na. <laughs> torop sax te yàlla ko si yàlla jàppale waaye ñun tam suñu président bii yàlla ko jaar yàlla jàppale ci loolu te bu mu nekk néegi neen mhm. man daal loolu la am lu ma wax. maa xale yi nag ñu ngi leen a tàggu jox leen dig daje ba beneen jëmi jamono ci yeneen i waxtaan ci yeneen i jaar-jaar ak yeneen i yóbbali bés bi am na solo. Eh. bye bye ba beneen yoon